suñ jógee foofu dañuy ñëw ci li nga xamanteni moy euh, euh, pôle installation 27 magistrats fofu ci pôle judiciaire financier bi nga xamanteni mon mo moo wutu lii di CREI ñi gis fi traque des biens mal acquis amulul njëriñ Sénégal.

Macky Sall en personne moom moo demandé woon ñu def ay rapport du dee nit dafa jalgati foog naa kooku liggéey Macky Sall nañ koy mais ñi nga je ni c'est may la façon de faire parce que justice au Sénégal dañoo am ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs donc do jëlee un pouvoir judiciaire dañuy faral di gis le procureur de la république mom moy faral di communiquer le garde des sceaux di wax ci les affaires judiciaires concernant les affaires judiciaires au Sénégal ouais. mais duñ gissé un premier ministre à l'époque Donc, nan le 12 du ngeen tal lenen lu lolu. donc dëkk bi kenn du ko génn dinañ japp xawma nan ak nan donc lolu da fay melni gatsa gatsa bam doon wax mom moy continuer ba tey war gissé le commissaire Keïta waxul dara lu sur un simple euh, plateau de télévision mu jone son avis ay nit yu mi wax mu répéter ko ñu téyé ko ci yóbbu ko instruction vraiment lolu ñi ko def sax xam nañu rafetul xam nañu il n'a rien fait deful dara duñ gisee ay nit ñoo xamni ni dégg naa sax légui euh, euh, le général Fall convoqué nañ ko mais STTM permettront la police mun entendre ou bien la euh, la gendarmerie mun auditionner mhm. donc réew mi dafa am nu ko tëggee ak donc même avec ces ministres du police ñom ñoo leen auditionner wala police parce que un statut moo mhm. mais aussi nous sommes dans un état de droit parce que le Sénégal c'est un état civilisé un état de droit très bien respecté dans le monde mhm benn convoi gis même un constitutionnaliste pour demander que euh, le fait de ne pas sortir les territoire, c'est légal non c'est pas vrai c'est pas légal dans des pays yi nga xam ah, guerre Mm-hmm. nga xamni ni nit ñi dañoo jël pouvoir par les armes mm-hmm. peut-être mun nga bind say ben liste parce que sont des dictateurs sont au niveau de l'aéroport pour que dirigeants yooyu buñu genn dans ce pays mm-hmm. mais un pays normal nga xamni même do défé dara ñun territoire France feulé do fa démé tay mun nañ la parce que dañoo am ce qu'on appelle des traités des conventions yo xamni ne mun nañ extrader mais pays normal yoyu nous avons am ko ay convention yooyu convention la libre circulation des biens et des personnes Nous mm-hmm. waral même un la pièce d'identité CEDEAO mm-hmm. war nga a déplacer dans la sous-région mm-hmm. mais le Sénégal da ratifié donc dans ce cas muy ay loi qui xam ne respecter mais duñ jëlee ba ñooñu ñi xañ leen seen seen àq ak parce que àtte wuñ leen gisuñ lenn loo xam ne dañ ko def parce que ñi méré won nañu nak ba gis naa sax ben, xalé bo xamné né nañ parce que fay am ben film bu me préparé ci Adji Sar motax ñu arrêté ko né ko bul génn le Sénégal. Ah avec oui dégg ben benn film bu xalé bi di xawma ki sante kan di préparé. Gabriel waaw Gabriel kan motax tax ñu ne ko yow amo droit génn mëno génn Sénégal ban responsabilité d'état la Moussa am parce que gis naa le procureur général mu ñi nga peut-être des délits économiques nañ defoon nga xamni ne dañoo laal ci koom-koomu réew mi peut-être Mimi Touré bokk ci nga xamni dañ ko Mimi Touré mi ci rapport yoyu donc ñooñu interdit wala wala dafa am Mimi Touré mom du ko neexee mu dem du ko neexee mu ñëw bañ koy nommer diko parce que euh, la nomination de Mimi Touré nous coûte cher mm-hmm. parce que Mimi Touré bi nga xamni def na 12 ans de comptabilité 11 ans avec Macky Sall mais du mom moom amu ci ben responsabilité mais ñeneen ñi nga xamné def nañ ay deux ans ministre ban responsabilité nañ ci am Mimi Touré a fait 11 ans avec le régime de Macky Sall ministre de la justice mais naturellement elle est naturellement comme ça mom hmm. son problème mooy nañ ko jox moy tëj car tejal du fexé non ba duggal Macky Ablaye Macky Sall si Karim Wade arrêtel Karim ni dugg fi mais donc pôle judiciaire yoy magistrat moi, je me suis dit que les désigné sont des grands magistrats yo xamni kenn mënu leena def lo lo xamni djegna dayo parce que Sénégal aussi lo mu de quoi qu'on puisse il y a des grands magistrats yo xamni ñom sen bop nañu gëm gëmuñu ay benn nit mo wara def li wala pour neexal une seule personne donc moy waral même ah étant donné que bi Macky Sall yore pouvoir bi amna na ñoo magistrats yo xamni ni dañoo dañoo dañoo dañoo dégoûté woon li nga xamni ñom ñe ñooy agent judiciaire de l'État avec ses avocats mm-hmm. mais pour entamer une procédure pour def ay gatsa gatsa arrêter l'économie de ce pays pour fang naa ne Sénégal coono gi mu nekkee ak métti gi nekkee parce que léegi rek sama soxnaan ma kilo soble mi ngi ko jëndee presque presque ñaar téeméer yu manqué ñaar fukk. kon te am Macky Sall am mi ngi ko bàyyi woon si deux cent francs kon réew mi métti na triple na à trois fois courant baa ngi yokk kenn waxu ko ndox maa ngi yokk kenn waxu ko la Sénégal est dire

défal lola mais peut-être aussi peut-être erreur c'est la bonne voie pour perdre le pouvoir pour aller aussi dès ci Sénégalais yépp won len ni yoon bi bon bu aussi il faut aussi dans ce cas les Sénégalais ñom ñom mëna sauver lolu ñom ñom mëna pour bu ñu comme disait Sonko ci discours bobu bu len djel mukk pouvoir législatif bi jox ko la ñi nga xam ñoo dans l'exécutif donc il faut prendre pouvoir législatif ngeen jox ko opposition bi pour que ñu mëna surveiller l'action du gouvernement pour képp kuñ bëgg a kasso yeen yéen ngeen opposé ko d'accord